légalisé ci réewum Sénégal yéen a kaay gi di l'info xëy wax ci élection locale yi nga xam ne mbir mi jamono ji tàng na jër te demaguñ fenn ci kuréel gii wala mbootaay gii di benn bokk yaakaar yéen a kaay gi nee na Mbaye Ndiaye tere na Amadou Ba ngir mu samp candidature ma ci mairie bu Parcelles Assainies yéen a kaay gi nee na Bouga Sali moom tim nee na candidat la ci fi nga xam ne mooy Guédiawaye ba pare yàq musiba ak mbelengaan Aliou Sall yéen a kaay gi nee na ca diiwaanu Saint-Louis foofe nag mbir mi dina fa tàng jër ndax ki nga xam ne mooy Mary Teuw Niane nee na candidat la ci mairie bu Saint-Louis te nag nee na kenn tànnal waa Saint-Louis kan mooy nekk seen maire askan wi ñoom seen bopp ñoo ko war a tànnal seen bopp kenn wurta daggee ca làng ga ñëw di leen ko tànnal moom Mary Teuw Niane nee na ab candidature am kenn munu ko gàntal kenn munu ko neenal te nag jamono ji nee na candidat la moom Mary Teuw Niane mi ñu fi dénkoon njàng mu kawe mi ay jamono disqualifié na ki nga xam ne mooy Mansour Faye nee na bilan bii nga xam ne Mansour Faye def na ko ci mairie bu Saint-Louis du bilan bu baax Dakar Times xëy yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ca diwaanu Saint-Louis du yomb yoon ci ki nga xam ne mooy maire ba di Mansour Faye xam ne moom la ñu waroon a amal ci moo ci am ñi nga xam ne ay nappkat lañ pêcheurs yi nekk ci diwaanu Saint-Louis mere nañ lool ki nga xam ne mooy Mansour Faye ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk Saint-Louis mere nañu lool ki nga xam ne mooy Mansour Faye moo tax journal bi nee na en tout cas élection yi du yomb benn yoon ci gorob Macky Sall bi yéen a di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Mayel Thiam mi nga xam ne mooy administrateur APR wax na ci élection locale yi wax ci tournée économique yi wax ci cong mbaaloo moo am ci APR moom Mayel na yi am ci élection yi nga la ñu ma a kaay de la turbine xëy di ñu xibaar naan ñu ab ki nga xam ne mooy Macky Sall Adama Faye yàkk na musiba ak mbelengaan ne mooy njiitu réew ndax nee na yi nga xam ne Macky Sall joxe na ko ngir élection locale yi ñu dëg ma la nee na loolee tegewul moom Adama Faye nee na trop de pouvoir tue le pouvoir bu bëri bi nga xam ne moom la ñu jox moo tax jamono ji mu yor comportement dictateur yéen kaay gi di Le Quotidien Direct News réew mi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu jafe-jafe suuf si nga xam ne moo am ci diwaanu jam Diamniadio askan wi nga xam ne ñoo dëkk Dugar ñoom nag daan nañu yóbbu entreprise bii di Peacock fa mbaxana doone benn yéen kaay gi di Les Échos ñu xëy fekk fa maire bu Médina di Bamba Fall nee na léegi ma ngi ci opposition radicale bi moom Bamba Fall nee na ma ngi ci opposition radicale bi journal bii di Vox Populi xëy séq waxtaanu yaatu ak Cheikh Bamba Dièye nee ñam li nga xamante ni mooy nguur bëgg a taañaaña la ndax Macky Sall jéego yi nga xam ne moom lay tekk ku ko xool rek xam ne ñetteelu mandat la bëgg ci bopp réewum Sénégal waaye nag loolee du ñu ko ko nangul benn yoona moom Cheikh Bamba Dièye nee na nag commencé waat li nga xam ne mooy manifestation yi loole nag ab rappel la daal boo xamante ni war na nañu ko rappel Macky Sall ndax nag dafay baax Macky Sall mii nga jekk-jekk na ko cuut ab pikiir ngir nag mu daal di xoolaat boppam yéen kaay gi di wal fajri ñu xëy fekk fa landing safane nee na neexul ba neexul waaye nag Macky Sall wër ta def ñetteelu mandat yéen kaay gi nee na Sénégal sori na lool yegg ci li nga xam ne mooy autosuffisance en riz yéen kaay gi ñu xëy fekk fa maître Abdoulaye Babou nee na Boy Djiné mbooleem dossier yoo xamante ni amoon na ko ci tribunaux yi jamono ci dossier yi yëpp dafa nee na mes ne men dañ kenn gisu ko yéen kaay gi di Vox Populi ak réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu ancienne piste ba gendarmerie daan na koy lu toll ci 873 personnes yoo xam ne teg nañu leen fa loxo am na lu toll ci juróom benn fukk ak ñett ñoo xam ne ay xale la ñoo yéen kaay gi di Libération nee na ancienne bi bëri na ñoo xam ne teg nañu leen loxo fekk fekk ak ay arme ak drogue waaye nag ñu ëpp sa ñooma maanaam Guinée Bissau wala ñu jóge ñii Guinée Conakry yéen kaay gi di réew mi quotidien ak l'observateur xëy duñu xibaar naan ñu ak Kër Madiabel lu toll si juróomi nit ñoo xam ne ñoo bokk benn njaboot ñoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan ci ab mariage la ñu demoon yéen kaay gi nee na ab oto xibaar naan ñu groupe promo consulting samedi ji nga xam ne moom la ñu génn organise na drapeau de départ bu madame Mariem Sané mi nga xam ne nag lu toll ci fukki at liggéey na ko ak waa groupe promo consulting yéen a kaay gi nee na employé ñi nga xam ne ñooy liggéeyee ci réew mi network ak réew mi quotidien ak réew mi point com ñoom ñëpp teewee nañ woon li nga xam ne mooy ndaje mi daal di koy feete màggal ko ci anam boo xam ne anam bu mucc ayib moom madame Sané mi nga xam ne ay jamono nekkoon na fi directrice bu réew mi FM nekkoon administratrice fondation emploi jeune du MEDES président Mbagnick Diop fekk na li nga xam ne mooy ndaje ma daal di koy jaajëfal rafetlu bu baax a baax collaboration bi nga xam ne doxoon na seen diggante jaajëfal ko ak nag li nga xam ne def na ko ci groupe bi nee na naam ma ngay dem retraite waaye nag ba léegi ma ngi ci biir groupe bi madame Sané jaajëfal na mbooleem ñi nga xam ne ñoom la liggéeyandool rawatina président ba ñu jóob ak ñi nga xam ne ay xalem lañ woon nekk ci réew mi FM daat nay wax ne lu bare bari daan na ko siy jànge yéene kaay gi di Stades xëy dañu xibaar naan ñu mat sa xaritoo bi doxoon diggante Sénégal ak Zambie Sénégal moo ko def ñetti bal ci benn waaye nag première mi bi maanaam amoon na spectacle lool lool